Basuma Basuma Mbare Basuma Mbare ce vendredi 6 ma ne leen vendredi de la résilience du peuple pour libérer Ousmane Sonko by force par force il sera libéré j'ai des problèmes avec Facebook je ne sais pas ce qui se passe les lives peut-être que ça là ça sera, ça sera supprimé après je ne sais pas pourquoi mais j'avance quand même j'ai une nouvelle page Facebook là Vision 250 que je vais non l'autre page c'est YouTube pour démarrer sur le vif du sujet comme d'habitude nous sommes à l'ouverture des classes la rentrée des écoles donc c'est l'éducation qui revient toujours ouverture bi nag li ci Ousmane Sonko mënul ñun mënuñu ko ci man amoon mon actif bi ma nekkee senegal mois seul j'avais une vingtaine d'élèves yoo xam ne maa leen doon inscrire sama bopp duma ko bàyyi kenn mu inscrire leen je comme ça kuy wax di ko sañ wax nii muy leer say élèves ñu ngi lay seetaan jàngale naa Gossas def naa Sokone def naa Ziguinchor élèves yaa ngi seetaan dinañu xam jënd fourniture balaa ñuy jur man ñi ma jur di am fourniture am na ñoo xam dam leen ni garanti seen fourniture ba pare mais dafa am lu si yokk plus de cent et poussière maman qui sont venus nous demander de l'aide cent et poussière maman je vous dit donc après vérification si laa nekkoon ma xam ne effectivement seen jëkkër yi ñu ngi kaso te daaw am na si ñoo xam depuis deux ans ñu ngi ci kaso bi Ousmane Sonko ndekete moo géré woon yenn nii ba yu bëri fuitewul woon parce que ñun ñëpp jaaxle nañu woon comment famille yëpp y'a autant de prisonniers te mosoo dégg seen jabar ci télé bi mosoo dégg seen i jabar ci émission yi ay chaîne poche poche seenu télé si poche yi di leen dem di interviewer moo tax patriote yi tam dama leen ñaan foofu tam foog ñu calculer ko man je suis un combattant mais ku njaboot social ku njaboot social je suis un grand combattant nag mais dama uuf samay élèves bàyyi bàyyi ñëpp la yaay yaay kenn la ñu ngi ci octobre rose yaay yi war am naqar octobre rose lañ nekk may jaale sama sœur waaw jigéen dëgg dem na waaw jigéen une grande femme waaw une battante koo xam ne moom bi ñuy déggante mën na ko Momy Seck mën na ma eh man santuma Seck Guèye laa sant mën na ko eh Momy mën na ma man santuma Seck Guèye laa sant dama am jëkkër dama am kilifa mais c'est dommage man Ousmane Sonko ma ñor si jëkkër déggantewuñu xaw ma ko xaw ma du ko tudd j'ai pas son temps mais sigil ndigaale ñi mu metti ñëpp sigil ndigaale famille yéen waa presse ak ñun artistes yi sigil ndigaale ndax code waaw code non octobre rose ndeysaan foog jigéen ñi faju ji yéen ñi am 39 ans et demi commencé leen dem bindu ci hôpitaux yi état foog mu jël loolu en charge yéen ñii am 39 ans et demi commencé leen bind si hôpitaux yi dem defi mammographie yéen ñun bu ñu xeexalee Ousmane Sonko ba pare yéen patriotes yi financer defar c'est bien beau mais est-ce que duñu jël ay machine mammographie yu bëri yónnee ko Sénégal est-ce du ñu jël ay scanner yu bëri yónnee ko Sénégal pour ñi nga xam dañu am cancer du sein pour ñi nga xam dañuy am cancer utérus ay feebar la yoo xam mu ngi ci àdduna kenn mënu ko éviter. jigéen wujje dong bu ko jigéen defee ba décédé àjjana la jëm bu deeyoo ndax wuje dafa metti wujje ñun ñuy góor kenn nangu ci wujje dëgg moo ma sonal jigéen ñi foog ngeen foog ñuy def mammographie dépistage cancer du sein cancer de l'utérus foog ñu koy def parce que c'est des maladies yoo xam ne c'est naturel kenn xamul lan la si gindi gale octobre rose lañ nekk pour l'armée malienne moom ñu dugg ki daal si gindi gaale ñu ñëw si la résilience du peuple ak di la résilience des influenceurs subversifs nu ko Ismaïla Madior Fall waxee mu ne Pape Alé Niang parce que Pape Alé Niang il dérange le système PAN parce que Pape Alé Niang est un homme d'honneur Pape Alé Niang est un homme exceptionnel qui n'est pas comme toi Ismaïla Madior Fall une autorité qui ose mentir devant vous tous mais peuple sénégalais sénégalaise éveillez-vous la loi peut parler à deux vitesses demain le 6 xam ngeen ban gàcce laa am qu'est-ce que j'ai de honte pourquoi faire un recours auprès du tribunal pour que pour récupérer la de Ousmane Sonko pour quoi ñu war a dem tribunal pour récupérer fiche Ousmane Sonko te ñu waroon xeex dëgg nday Macky Sonko bokk par force ndax amul loi bu ko fa génnee amul juge bu ko fa génnee gars yi naxe baa ñu ñëw naxe bi mooy justice mën na ne aywa Ousmane sunko kenn nu ko tere nekk candidat day nekk candidat ba ñu jox ko fiche de parrainage aywa leen ñun ñoo ko réclamé ñu dem conseil constitutionnel ñu ne ñu bokkul sotti galaas tuur safara moo tax liw Ousmane Sonko il avait très tôt compris fi affaire bi jëm moo taxoon mu ne leen ndax pare ngeen ndax pare ngeen ndax pare ngeen ngeen ne ko waaw mu ne leen résilience mooy endurance force résistance mooy résilience bu le passé si résistance laa leen defal live tey si résilience xam nga nit boo koy jàngal xeex foog nga wax ko lan lay xeex li muy xeex lan la ak fan la xeexam toll dëgg nday ma ki jot na la résilience est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable loolu résilience maanaam résilience xam nga yéen lan la leen Macky def nii moo tax ñu ne leen c'est la vous dans la résilience actuellement Mazmine Diop bi ñu tasee partem toroxal ko ne ko dis nga da dugal ay armes da ngay def yëpp il s'est résilié contre le système jusqu'à sa mort mais il s'est résilié contre le peuple sénégalais qui n'avait pas compris moo taxoon fee bi il avait rejeté tout le monde Majmoun Diop avait rejeté tout le monde parce que il s'était résilié il s'était dit que les sénégalais n'ont pas compris ngor fee mu nekk doomam yi mu jur il les avait fichus d'or biñ naan soxor ma koy défendre personne ne m'avait compris mais il s'était résilié par rapport à quelque chose moo tax nit ku comprendre Majmun Jóob daaw ko fréquenté benn jarbaatam kese moo ko daan fréquenté même gardien bi xam nga ne yow tey dans le système nga ne ko gardien bu maree naan da ngay dem wuti ndox fële mais doo naan këram parce que comprendre oo Majmun Jóob il s'était complètement résilié yàlla bu fa Sonko yegg ak ñun la résilience du peuple a sonné ñu demaat la résilience la résilience est la capacité à rebondir face à l'adversité à s'adapter à se rétablir et à retrouver l'accès à une vie pleine de sens et de productivité la résilience est la capacité maanaam la capacité de rebondir maanaam li Ousmane Sonko daj ni ñun suñuy nombre de morts suñuy nombre de détenus suñuy nombre de mutilés suñuy nombre de viols yëpp gars yi il faut qu'on se résilie pour que ñoom ñëpp sañaat siggi xool nit ñi pour que seen waajur yi nooyi nooyi bu normal pour que au moins ñu amaat espoir de vivre bi pas ñun ñoo war résilier wu fal suñu président bi ñu bëgg a faa di pas di fal ndax dañoo mer waratuñu fal ndax dañoo mer déedéet falu waruñu ko def je regrette cette capacité de la résilience correspond à l'adaptation de individu qui rencontre des défis et obstacles générant parfois une grande dose de stress yàlla bu mu dal Ousmane Sonko fa le peuple bi tollu tout le monde est stressé parce que on vous a traumatisé par lam ay crime lu Sénégal tàmmul dóor ko bal mu décédé ñu laal deret bi mu tiit man j'ai très tôt compris bi may xale su ma xeexeex yow jam la tamay naan deret bi wala ma mat sa ndey xëccaale der bi naan sa deret booy naan ma dëmb du question dëmb da ngay comprendre psychologie sénégalaise mooy lan maison d'arrêt ak morgue boo ko ñamewul tu restes derrière tes camarades doo mosu jiite dara senegal maison d'arrêt ak morgue ko ko ñemewul matoo góor dëgg moo ma sonal te moo ñu sonal nii fi ñu toll nii nag maison d'arrêt yi foog ñu ñeme ko morgue yi foog ñu ñeme ko ndax day am ci jàmm ak ci salaam dafay am la résilience il faut qu'on se la résilience mentale nag moo ci des fi combat bi toll nii lenn rek a ci des mooy émotion yi ñun ñëpp ci émotion lañ nekk crime yi Sonko ngi kaso ndax Sonko dina bokk ndax Sonko du bokk mën nañu yokkaat adrénaline bi ne leen Sonko day bokk ñuy dem di ko jiwaat conseil constitutionnel kenn du ko def dañuy xeex ak ndey jëlee ko fi par force. la résilience émotionnelle mooy la la résilience mentale la résilience émotionnelle qui la capacité de remettre rapidement des difficultés et de pouvoir revenir à un état de nature face aux difficultés koo koy la résilience mentale c'est un excellent indicateur de l'intelligence émotionnelle ainsi qu'un différentiel pour produire la résilience organisationnelle c'est ça qui nous manque l'organisation pour combattre ce système l'organisation pour combattre ce gouvernement de Macky Sall parce que biñ ñu rayee destabilisé lépp a tas ni dissoudre nañ Pastef ñi daw génn dëkk bi ñi doo xam fu ñu nekk ñëpp réer ñu jël ay monsieur le maire tëj ci kaso bi gisoo seen waa ville déconné gisoo ay conseils municipaux am déconné gisoo député yi yëngal déconné résilience booboo ñu dese organisationnelle gis ngeen ne sans organisation y a rien parce que vendredi passé biñ na xëpp cinq candidats yéen ñëpp a jubilé ñu ne leen déet anamu tey foog ñu taxawal affaire yi foog ñu teg affaire yi ci code code ko am yeneen vision la résilience émotionnelle c'est un excellent indicateur de l'intelligence émotionnelle ainsi qu'un différentiel pour produire la résilience organisationnelle moment bi émotion yi xoola depuis mois de juin aspiré nañ émotion yi ba pare nous sommes juin juillet aut septembre octobre lañu dugg cinquième mois bi war nañu changer code combat bi organiser ko pour pouvoir combattre normalement vous m'avez compris non ça c'est la résilience émotionnelle kay bëgg xeex bañ xeex bëre leen góor ni bëre leenoo ay leen góor ñi pourquoi yónnee kaye yeeg yooyu li ma leen waxoon laa ne waxaat de wut leen coordonnées Dame Mbodj yónnee ko yéen ñi dama ko laajte senegal ouverture des classes lañ nekk bu ñuy laay fati élèves yi foog ñu toog am lu ñu jàng décortiquer moo tax laay fi day commencé léegi fii la ñuy toll fii lañ koy jànge fii lañ koy jàngate yéen directeur d'école yi nag yéen lay ñaan gox bu mu mun mënti doon gox bu mu mun mënti doon élèves yi nga xam ne amuñu inscription élèves yi nga xam ne seen parents yaa ngi kaso ndax man bu leen sonn de saa jot la am ku ma woo di nga wax sonn jooy ba dee mais jox ma say coordonnées rek man je sais comment vérifier je sais quand vérifier je sais où vérifier su ma vérifier si c'est pas vrai vous avez vu le système que j'emploie je bloque le numéro si c'est vrai mais même Europe kenn ñemeetul envoyé envoyé xaalis direct Sénégal kenn ñemeetu ko kenn ñemeetu ko yéen les directeurs d'école nag dam leen di ñaan de xale yi nañu dugg jàng ba noppi fourniture yi fourniture yi nu ko sama mère bi waxee sànq eh suma fourniture bi man eh waay fourniture yi yooyu moom mama li ma leen wax laa leen di waxaat li ci Sonko mënoon ñun mënuñu ko ci ñun ay coppeetu addiya lañ ñuy jox Sonko ay addiya million lañ daan teg ci loxo mu ne diw ak diw ak séddale leen ko ñu wóor ñoo ko daan seddale mais ñun tey ñu ngi ci kaso bi ñeneen ñi daw nañ génn dëkk bi moo tax nag yéen ñi nag diaspora bi rek la ñu mën a waxal fu mu toll nii man directeur d'école bu ma passe ay liste parents d'élèves ba ma contrôlé ko ba mu leer ma ne ñii c'est des problèmes carrément social ku si bëgg a jàpp bu dee parent bi am na numéro téléphone man soo ma woowee ma passe le parent bi direct yow nga yónnee ko ko ci wéefam direct comme ni may def rek man je balance les numéros je balance les numéros mais balancer numéro bi lu nit ñi commencé ragal te man tam temps dem di lijjanti ay affaire retiré xaalis mënuma ko awma compte bancaire dëgg moo neex yàlla ndax du ma doxee compte bancaire business laay doxee dem di récupérer xaalis daf may fàtt te saa nga yónnee ñit xaalis si tuuru jàmbur nga dem ñu ne la no loolu di tuuram da ngay changé yónnee waat ñit si tuuram day changé moo tax paypal bi daal dugaloon nañ ma ko à partir de paypal dama doon delloo xaalis yi ndax comprendre ma woon léegi buñ ko dugalee paypal ba pare dinaa ko yóbbu si ñu ko xam ñoom ñu envoyé ko waat comme da a ragal gars yi Sénégal bi ragal même am na directeur d'école boo xam dama ko woo mu ne ma non j'ai 16 cas mën na ko jëlal cas yi bàyyi ma woo kenn mu wéef la ma ah, mukk nekkul maa leen di keneen moo leen di wéef sama yoon nekkul ci man du feeñ fenn du ci feeñ man dama kii la pont la pont oto yi dañuy romb dem di gisante yeneen dëkk yi te man maa ngi fii taxaw du gis. bu leen ragal li lay war a suuli Macky Sall a ah, terrorisé nee naa leen traumatisme la teg ci nit ñi ñëpp traumatisé wu Sénégal. mais traumatisme bi nag c'est bon c'est pour de bonne guerre ndax tôt ou tard ça va exploser métti métti dañuy xeex bëgg a xeex bañ xeex billahi wallahi talaay dañuy xeex Macky suba vendredi 6 cour suprême xoola dem leen ñu jox leen seen résultat tu vas aller à l'école booy ji li ma am ci kaawu école nii damaa jommi man man gis nga deux jours yi su ma la am gis ngeen ne laay fu ma Facebook mu ngi may coupé école yaa ngi may bëgg a rey meew meew meew directeur d'école yi nag léegi yan laay waxal sama numéro France fii 06 la 05 chez waay 06 05 59 96 00 06 05 59 96 00 zoom nee na ma bravo la désir jaajëf yow <laughs> jaajëf sama gars yi mais gars yi foog xeex de foog jàppalante ci social bi ñu inscrire booy yi école seen parents yaa ngi ci kaso bi Ousmane Sonko mu ngi ci biir moment yi du ma leen nëbb xam nga nag lan laay ragal ñu dem di leen interviewer ñu naan dañ jàpp seen dañ jàpp seen pap pour ay manifestation tëj leen léegi mu ngi nii seen doom jàngiwuñu seen doom amuñu fourniture loolu si defetu xeex la bokk. ñooñu bu ñu meree wala influenceurs yi jàpp leen ba tappe seen bopp yi mën nañu gis leneen wala ñu màndu ne duñu voté loolu yëpp moment yi c'est à éviter ci final lañ nekk. ñu ngi si résilience égale endurance force résistance loolu rek laa leen ñaan résistance moo si des mooy aller retour aller retour day metti day metti mais foog ñu yegg fi ñu jëm dañuy cotiser pour campagne certes mais xale yi jàngi man c'est ça man looloo ma gënal man éducation man moom j'y tiens parce que j'étais éducateur kenn mënu maa tere bëgg a jàngale kenn mënu maa tere bëgg xale yi dem école man kese à mon actif vingt et un élèves laa am yoo xam ne man man man kese kooku avant le combat ak après depuis Gossas j'inscris depuis les années 2000 damay inscrire ay doomi jàmbur dem ci école primaire ñaanaatu ay cahier sans compter cahier yu may jënd pour mën a dem séddale fourniture d'école yi laa jël Dakar li ma daan dem di ñaanaatu ay livre ak yooyu ñëw jox élèves yi pour ñu jàng pour ñu am xam-xam xam nga wut xam-xam daf ma mos a nekk si xale xam-xam rek laay waxtaan ak xale bi ma waxtaan ak xale lu ñàkk fayda mukk jamais de xam-xam rek ku amul xam-xam doo ci àdduna te jàng muy nit jàppale leen xale yi jàngi jàng bee tax ñu gañ a xeex ñàkk jàng bee tax ñu ñàkk xeex ni di occupé wu si lu ay affaire de bas code. code leen xeex bi ñu gañ a ko gars yi dañuy xeex ak Macky Sall métti métti dañuy xeex ak Macky ndax décision yaa ngi di dal suñu kaw. code leen xeex bi ñu xeex ko jàpp si combat bi ñu inscrit xale yi ñi jàpp si combat bi pour combat bi ñoom di jéeg ñooñu mën nañ ko gérer on est d'accord waaye je le suis demain active la liaison. on est ensemble les gars jàpp leen si combat bi waaye ñu inscrire booy bilaay seen booy yaa ngi ci kaso bi man moom yaa yee ma sonal ñaari fan yi moom je suis complètement stressé ndax les mamans là papa papa papa papa papa jàpp leen si combat bi ngir yàlla jigéen dafa gaaw a stressé jigéen dafa gaaw a paniqué bu tolloo fii doomam bëgg a def li te ciy soxla jàpp jàppale leen gars yi ñu jàppale gars yi yéen directeur d'école yi yéen laay waxal jël leen xale yi jàng jël leen mu fisi jëlee leen ma nombre yi ma wutal leen ay parrain léegi ma leen ñoo xam ne dinañ leen parrainer école inscription xale yeeg kii inscription xale yeeg seen fourniture d'école yi ak seen tenue yi ñuy ñaw moo tax ren mu ñàng ci man am na ñu ma daan inscrire 6000 6000 xam nga ren lu ñu ma wax 11000 11000 te commencé naa ko départ naa ko bu yàgg bay bay daw ak moom 06 05 59 96 00 jàpp leen si combat bi Paypal Cheikh Diallo ngeen di bind ngeen envoyé ci man damay inscrire xale yi parce que dañuy xeex. xeex bi mu ngi suñu kanam basuma basuma mbare je compte sur vous pour appliquer l'éducation de nos enfants